jër ngeen jëf di rafetlu ànd bi ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci seeni xibaar tey ci talaata bi ñu koy doore ak coronavirus ci 1443 tests yi ñu jot a réalisé 168 cas ci positif ci yooyu nag am na ci 54 cas contact ak 10 décès. le président de la république ñu koy xaarandi tey rek ci talaata bi ngir rek mu àddu ci euh, mesure yu bees yi rek mu war a jël ci état d'urgence bi léegi ni démb ci ngoon nag kii di Antoine Félix Diome daal dina génn ci RTS rek ngir euh, xamle ne lii di couvre-feu bi daal dinañ ko prolonger pour euh, une durée de huit jours ci noonu rek mu daal di xamlewaat ne lii seen objectif ñoom du benn yoon xoqatal lii di askan bi mais rek ngir protéger leen ci lii di pandémie de coronavirus ñu àddu rekk wax ci première dame bi di Marième faysal moom nag ginnaaw ba amee benn entretien démb ak waa RTS rek fee ca këram nga nekk Mermoz journaliste bi daal di ko posé question rek ci li Sénégalais yi doon jeexi jaaxaar ndaxte dafa dofoon ci fan yi weesu moom rekk mu xamal ko ne nag niñ koy déggee moom noonu la koy déggee te muy ñaan rekk lii bu fekkee rekk yàlla dégg na ko yàlla na doon loo xam ne da ko naqari ba tey rek ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV ñu àddu dem rek ci disparition jaari Sow kii di jaari Sow nag disparition bi mi ngi mel nii rek c'est volontaire ndaxte bu ñu sikkandikoo rek ci enquête police française bu ñu duggee ci néegu kii di jaari Sow rek mu mel ni rek effet de toilette am yi ak yëre yam fa yoroon yëg yëre yam fa yoroon lépp da ko daal di yóbbaale biñ ñu posé question tamit ñi nga xam ne moom la bokkaloon classe kii di jaari daf leen xamaloon ne rek ci janvier bi dootul dellusiwaat ci école boobule. ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV ñu àddu ci décès Abdoul Aziz Jamil dëkk bii di Tiwaawoon nag maire ba futtu rek kiñ mere nag moo di Youssou Ndour rek ak groupe de presse boobu noonu lu waral loolu ndaxte nag bi jée bi amee rek saa ñu xëyee rek dañ ciy bind loo xam ne dara leeru leen ñoom ñu jàpp ne rek groupe de presse boobu dañoo vilipender famille boobu ndaxte kii di Dame Amar bi mu amee problème rek ak justice àdduñu benn yoon ci boobu boobule mbir cité Mbackiou fay bi nekk Mamel ab gang rek lañ fa jàpp ak un milliard de faux billets ci gang boobu nag am na ci benn sénégalais benn ivoirien ak mauritanien ñoom nag biñ leen jàppee rek ñuy def seen ñaawteef yooyu dañ leen fekk ak ay jumtuwaay yu xarale lu ci mel ni machine de décompte de billets séchoir ak rouleau élastique fi ñuy waxee ak yéen nii nag ñoo ñu def boobu boobule ñaawteef ñu ngi ci loxo yoon. ñu dem rek ba Nianda commune de Ngékox nekk ci département de Mbour ña yewoo ci boobule gox nag nelawatuñ benn yoon rek ba yandoor ndaxte nag saa yu ñu xëyee rek ab tàkk-tàkk dafa war a am foofu noonu li waral bile jee nag kenn xamagu ko ndaxte fi mu toll nii nag seenu dund mi ngi bëgg a metti ndax lépp lu ñu gàdde woon rek pour lekk wala lu ñuy dundee rek ñu ngi koy ñàkk ndax tàkk-tàkk yooyu lii nag ñu ngi posé wu la question ndax loxo defu ko peut-être mën na nekk ab benn être surnaturel maanaam rab bala jinne rek bu leen di sonal. génn àddina xalifa général bu Ngourane Cheikh bu Seck daal dina génn àdduna ne démb rek à lage de quatre-vingt-onze ans mu nekk nag perte bu rëy rek ci communauté xaadir bi moom nag dinañ ko denc ne ni tey di ñaan yàlla rek mu yërëm ko rek te jéggal ko ay bàkkaaram jërë ngeen jëf yéen ñi safoo Equivox TV di leen jox dig daje rek suba ak jàmm incha allah.